waktude bolé gi way doomu ne mor gueɗe gi tamga fof fekk jox ma ay xaaliss tay mom duma laal xaaliss ay balle géej gi nee naa la yaa fi ne bu du woon sama fi day nul barki borom Touba nee naa la ya foo fekk jox ma ay 10000 tay ay way balle géej yaa fi ne ya doomu ne mor géej yéen ñaa yéen a ànd nee la ba États-Unis lak say fukki morom ngeen ni batere jëmale kaw dégg na minuit ba huit heures du matin leen kaa battre te joxoon na fa loolu ay ñaari junni a doom te déedéet du ma laal loolu man de géej yaa fi ne kenn du yow bu dul a sama fii day ñaaw yaa tas sama fii neenul barki borom Touba yéen naa yow loo dugg da nga si génn nice yaa fi ne du yow dagg ñu